lan nga ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw di gërëm gaa yi teew fii waaw di gërëm dembaka ak jabaram di sant Matar njaay mi àndi yóbbante bi di sant Waly Seck ak njaga ak kiyom yi ñëw fii ñu andi waa délégation bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm waa diaspora bi ñëpp. képp ku ci dugal sa dërëm wala sa ñaar dërëm rek mu jaarale ko ci yow Lamine walla ci Pape Sarr wala ci Toldo ci képp ku mu jaar daal agsi na fii maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw di ñaanal sama yaay nag mu gën fee yàgg ndax man fee def bu ñu foog ni man la lu mu gën a metti si sama yaay moo koy daj waaw ndax man li ma tëdd nii metti na de mais sama yaay tamit sonn na bu baax su ma nelawul guddi man ak moo may toog fii waaw kon bu ñu jàpp ni man kese tëdd képp ku ma jàppale rek du man mais sama yaay nga jàppale. Hmm. waaw di gërëm ñépp daal seex ku yaate duma ko fàtte moom dama koy bàyyi suñ suñu borom rek moom mi am fay yàlla na ko fay ak képp ku ci jàpp. Hmm. waaw maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee rek damay juum. waaw di gërëm ñoom Demba Jama Bella liilu sama mag Pape hmm. Mortala ah, Zoro Ondo. maa ngi gërëm ñépp ñoom ñu ciy dox ñëpp sant naa leen gërëm naa leen waaw bàyyiwuma kenn waaw waaw ngi sant tamit ama ama maa ngay sant bu baax démb def na geste bu nice waaw maa ngi sant tamit Aly Ngouille njaay bu baax a baax a baax yëkkati na xaalis bu bari jox ko ama waaw di gërëm booy ñaar tamit ñëw na fi waaw mobile moom mention spéciale moom boobu ba léegi day taal otoom lakk gaz waalam ànd ak ñoom lii loo dox ci affaire yi bu baax mm-hmm. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax baax Siteu moom day nëbbatu woona ma mm-hmm. mais moom it waaw naa bàyyi naaka ak suñ borom daal Baipal woo na ma mm-hmm. Baipal woo na ma ak kii Yékini Junior ñoom maa leen sant bu baax waaw ak Ramdaan ñoom ñëpp mbër yi ci jàpp ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Mm-hmm. waaw bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp waaw merci. waaw Lamine damay nuyuwaat rek di sant yàlla di dooliwaat sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla ba mu ñu mayee waajur ju mel nii muy sama yaay jigéen ju mun góor ñun moom moo ñu yar ñun moom lañ xam dela nii ñoo bokk benn koñ fii de police lu ñeneen ñi di def ñun mun nañ ko mais ñun moom moom dañ koy xoole benn bët boo xam ne ay góor rek la jur te mënoon nañ def lu ñu neex mais déedéet boo gisee ñuy sonn nii moom moo tax barki sëriñ Saliou moo tax sàng ba ngeen ne pour mu wax ma ne du wax parce que day jooy te man bugguma di gis sama yaa di jooy ça me fait wallaahi lii nii kenn bugg ko mais ndogal yàlla la ndogal yàlla la ñu koy sante yàlla may delluwaat di gërëm diaspora bi monde entier monde entier laay gërëm wallaahi ba waa New Zealand dañ may woo barki sëriñ Saliou di delluwaat di sant ku may njëkk sant muy capitaine Cheikh Kouyaté Cheikh man chaque jour moom laay jiite waaw Cheikh Kouyaté di ko delluwaat di ko santaat di ko gërëm nga xam ne moom lépp moom la njëkk gis après ñeneen ñi ñëw ñeneen ñi bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu wallaahi waa diaspora bi libaas frère Morlo Toldo di teg bi ci Toldo di leen gërëm ñoom ñëpp monde entier di delluwaat di gërëm waykat bi faramaareen waali waali xataluñu benn yoon dem nañ fa du benn du ñaar barki Serigne Saliou waali Seck yaatal ñu advoissé euro surtout muy njaga njaga ba mu jógee voyage ci ëllëg sa ci ëllëg sa la ñu recevoir mooy nii tey yónnee moom lu mu diggalanteeg maire bi sax dafa ne buñ ko génnee ci média bi ndax moom après dina jël hors antenne maire bi wax ak moom waali woote na fii wax ak sama yaay wax ak jibi ak waa chez Europe yëpp gars yi ñoo ngi nii toog di delluwaat di sant monsieur le ministre Aly nguy Ndiaye Demba Ka borom Eureka dégg dañuy nëbbatu mais man dama koy wax ñu si jàpp ñëpp ak ñi nga xamante ne jël nañ seen xaalis jaarale ko sama loxo. waaw suba ñu war ko àndi xam naa ñi danañ ñëwaale sax. mu toll un million neuf cent. si ñooñu ñëpp tamit suba danañ leen remercier fii nga ñu dégg seen tur. waaw at si tëmbër. Eh, waaw. day <laughs> fii gis nga. Hmm. ku fi def lu baax am lu baax. merci baat bu gàtt la mais koo ko defalul du ko wax. Hmm. di waxaat autorité Pikine xoole nañ. ñoom xoole nañ laa ba benn doom pikin wala ñaar ñoo ci jàpp ñeen ñëpp dëkkuñu pikin je le dis haut autorité pikin ñoom suba bu ñu taxanteeg man bu ma leen wax leen lan la ñuy wax lan la ñuy wax te Macky teg leen fi. ki moo leen fi teg lii nii mag Sall yëgu ko Marème fay Sall yëgu ko ñoom lii nii xoola xoole nañ ba affaire bi mat ba ëpp affaire mën na ba ëpp bu yàlla di def jàmm rek bu yàlla di def jàmm jibi dina dem ci kàttanu yàlla may delluwaat di gërëm ñu dul doomu pikin te jàpp si ñoo ngi leen di sant di leen gërëm may dellusiwaat ci Ama Boy Niang Boy Niang bërki dem la fi jógee andi na tamit enveloppe Ama ñu dem ba ci Aly Ngouille Ndiaye mu ne man sama combat amagul date mais man lii mooy sama combat pour jibi Aly Ngouille njaay ex ministre de l'intérieur ñu koy gërëm ak jabaram may dellu di gërëmaat waa diaspora bi yëpp am na ñoo xam def naa kaye kaye 52 pages ñuy Orange Money Wave ñëpp ñëpp laa bind seen tur am na ñoo xam nag dañuy sàkketu ñu nekk États-Unis gars yi ñoom bu ñu seetaanee bu nekk États-Unis dañuy nëbbatu buggu ñu ma wax seen tur mais tamit loolu dama leen koy may na xaw ma lu tax ñuy nëbbatu dama leen koy may mais ku si mel punkal nii ay Waly Seck Ndiago Euro ministre Aly Ngouille Ndiaye Cheikh Kouyaté Demba Ka ak jabaram dama leen di wax nii ndax ku def lu baax am lu baax pour Sénégal ñaanal leen jibi dellu di leen ñaanalaat ndax fii ku fi def ñu waxoo loolu lay delluwaat di ko wax ndax instant yi damay waxee xol sax barki Serigne Sall lu toll ni Pikine 16 communes lu toll ni pikin 16 communes gars yi ñu ñu dénk pikin kenn defaluñu dara ñoom lii bu xaalis bu ñu leen jox bu ñu fajul ki ñu tawat ñan la ñuy faj. ñaan di dellu di gërëmaat asi Ndiaye. Mm-hmm. Aziz Ndiaye dem nañ fa alburaax mu yëkkati xaalis bu bari jox ñu. Mm-hmm. di delluwaat di gërëmaat ay Siteu. Mm-hmm. Ama booy ñaa moom yàlla laa leen di booleel. waaw di gërëm Ama Boy Niang Dóora Gueye. Dóora gëy yónnee na enveloppe bi Rama Maki moo ko andi. baabooy tamit baabooy Balla Gaye 2 mm. moom dafa def ba pare ne moom lu mu def doyul parce que neen day ruus a ñëw fii ma ne ko jaru ko sam papa lu tuddee Balla Gaye 2 dugal na fi xaalis bu bari ba pare nee na moom day ruus moo tax ma ne ko ñëwal yàlla baax na affaire lu ñu doon séentu am nañ ba ëppal ko di delluwaat di sant rek di santaat ñii waa Europe bi xam nga gars yi toog fii xam nga diaspora bi ñoom ba nii ñu ngi yónnee ba nii seen loxo ngi ñëw. di leen sant di leen gërëm di delluwaat di bëggee capitaine. capitaine di bëggee sama gars yi Demba Jama ay Babacar Babacar Bale moom saa yuñ taxee mu wax jooy barki Serigne Saliou moo ne ko yow coo jibul waaw di gërëmaat gars yi del yi xam nga ñoom saa ñu demee Europe ñoo ñuy dalal di ñu dëfalaat. billaay wallaay duñ bëgg dem sax fa la ñuy kaase toog. mooy loolu. di leen gërëm rek yàlla baax na jaajëf.